ne ko teewu ñaar bi mu témoin waaye kon ñu gën a arrêté dañu ko seetaan dafa fekk ñu ngi interview fii ci taal bi moo tax ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm côté bii nga xam ne teew nañu fii yëpp te damaa ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax di gërëm commune yëpp commune yëpp kon su ko defee comme li ngeen naan Isbaa Dia ñëw àndi ak si te barakallahu beneen yëpp beneen yëpp yu toll nii fekk am na ci lu mu dem ak beneen yi kon léegi dañuy jéem a def ñaan rek jox imam bi ñu ubbiwoon mu mu mu defaat ñu ñaan ñu ñu tëj bu defee ñu ngi remercier ñëpp di jox rendez-vous balaa yàgg dinañu daje incha allah ñu xool fan lañu jëm ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla kon kàddu yooyu rek ñu bëggoon nga day jox. ana Moussa ah saa ñemoo commune Nord jaajëf aci leen waaleykum salaam man de dama ñu war rek jarul waaye nag waa Kër Massar Nord bu ni ma foog nga sànni ci kàddu kàddu jaajëfal leen rek nday yomb loolu nday defe naa gaynde sii siibi gi entre guillemets bi nekk ci beneen côté bi bëggoon na yeew délégué de quartier yi Kër Massar Nord de kon bu Kër Massar Nord amee ay délégué de quartier am fulla am fayda am euh, ràññee am xame ba am ñëw toog fii déglu gis jataay bu rafet bii sant leen gërëm leen la ñu ngi leen di leen gërëm gis nañu seen taxawaay bu baax a baax a baax ay kilifa yu mag a ngi fi xam naa ne professeur Adama dafa am pour wala mu dem jàngi moom la ñu jox commission santé mi ngi fii mais suñu doyen bi Medoune Mbaye Thiam ci administration territoriale la nekkoon am na ñoom euh, Ismaïla Ndonga nga demee ñoom Chérif Ba yëpp ngi fi woon ñu bari sax ñi dinañu mais daal gërëm sant ñaan yàlla ñu ñaanal ñu yàlla bu yaakaaru délégué de quartier yi tase ci ñun mas a nekk loolu la ñuy ñaan bu ñu joxee responsabilité daal dañu ko jox yàlla bu seen yaakaar tas boobu ñaan yàlla may ñu fekkee bu wér ak tal jërëjëf maa ngi nuyu nag sama sekkee neeg njaween yi parce que gis naa leen fi waa kay jërëjëf sa alaaji Souley may jóge ba Diofior itam gisuma ko